لقد bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin mubayinil ayaati wal xikam sallallahu alayhi wa ala alihi wa asxaabihi wa azwaajihi wa zurriyaatihi wa radiyallahu an jamiil muqarrabina wa taabiihim min ashaabil yamini min al awwalina wal axirin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu sunu bopp sunuy mbokk mbokk gi gën a dëgër mooy mbokk alquran di ziyaare di bég lool ci ñëw ci bis bi nga xam ni bis la bu ñuy jokkoo sunu xalaf yi ñuy ñaan ñuy xalaf waaye di ci jokkoo salaf bi it muy ñi jiitu jataay bii jataayu jokkoo la ak alxaaji Amadou Wade radiyallahu taala anhu muy jataay bu ñuy jokkaleek Serigne Ahmed Sakhir Lo saa bu ñu fi ñëwee jokkoo googu am ñu jokkale koog Serigne Birahim Diop mi nga xam ni mooy sëriñu alxaaji Amadou Wade tabarakallahu di sëriñu Ahmed Sakhir Lo yàlla dogal ñaari cosaan yooyu ci mbaaxuk yàlla ak yërmandeem fatloom ak rahma la yàlla dogale ñoom ñu jokkale ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci lii nga xam ni moo santaane woon ni yu li yuballighi minkumul ghaiba yonent bi bi ko yàlla yónnee mu indi li ko yàlla yónni ba pare ba muy dem def ni ku ko fekke ku ci jot dara mooy ashaahid boo dajee ku ci jotul dara jottali ko alhamdulillahi rabbil alamin seydi alxaaj malik radiyallahu taala anhu la ca jot mu jotale ko sëriñ birahim jóg fonkal ko boppam ba moo ko sant mu dellu ndar ngir bëgga jàngal njabootam kon wóolu woon ko daawoo Birahim ni ko dellul ndar dama bëgg Mansour ak Abdul Aziz ñii di sama njaboot nga jàngal leen te ñàgg ga nga dem def fa daara daa am lu ñu jàng moo di ni al badawi nekk yore yaru kaw kaw dañu ni ci imam yi day wàññi martaba te dama bëgg ñoom kaw kawe googu du nekk ci ñoom kon demal ndar ba mu demee ndar di jàngale ba góor gi Ahmed Sakhir Lo maîtriser alquran xam ni war na am fiq ak la ca des ngir xam alquran ba tafsir góor gi laxas dem fa moo ne booba fekk na ëmm du jóge fa waaye yàlla dogal ci ñi bilaay yi mujj a jàngal góor gi Ahmad Saxiir ci la bokk ba mu ñëwee mu fekk daara ja dañuy tiitaroo ñun njabootu Sëriñ Birahim ñun njabootu Alaaji Amadou Wade dañuy tiitaroo ni kokki fierté lañu am ci mu jóge ci sunu daara baay ak sunu daaray maam ba mu ñëwee ci fekki sëriñ Birahim di jàng ba nawet fekk ko fa nit day fonk fi muy jànge mu ñëw fekk daara ji ñu ni ko tey duñu jàng te daa xëy di jàng si ñu ni ko du ñu jàng tey mu ni lu tax du jàng ñu ni jàngukaay bi moo taa ndax booba ñiy jàng ci sëriñ Birahim di goor ci kanamam ngir jàng bari nañu ba fa ñu daan jànge daa mujj diw xur moo ne fekkoon na fa ñeneen de waaye ñooña bu ñu xëysee fekk daara ji taa dañuy ñibbi di xaar bis bu ngiisee ñu dellusi jàng moom ba mu ne lu tax ñu ni ko duñu jàng ñu ni ko daara ji moo taa ndax li mu xóot nii te bu xóotee nit ñi duñu am fu ñu jànge yal yàlla yokk leeram fay ko yiw yiw woowu mu jëkk a def ci daaray sëriñ Birahim Diop mooy mu ñëw dénkaane ay téereem jël kaala gamu daan kaala woo dem ca tefes ga tàllal kaala gi def ci suuf ba mu fees mu yenu ko indi fës yéene ko sëkke jàngukaayam bi nga xam ne nee nañu li tax jàngatu ci mooy limu taa kaala mënu la sëkk daara ju tol noonu waaye yéeneem la doore rekk yàlla fekk ko ci am jigéen ñu ko gis mu ñëw ñaari yoon ñetti yoon di jël kaala gi di ci def beeñu géej gi di gàddu du dem ñu ni ko waaw yow looy liggéey mu ni sama daara yi sëriñ jële moo taa mu bëgg ko sëkk ñu ni ko lii kaala mënu ko abal ko beñuwaar ñu abal ko paan mu jël kaala ga def ko tooñ di jël paan ba bu tëbbee ba mu fees teeñoo kaala ga yenu beñuwaaru suuf bi dëbb ko ci daarey sëriñam ba di ko ko sëkke muy sëkk daare ja yendu fa ba ba muy pare daa dëll moo gëna kawe li ko wër yépp mu wóor ko ni dootu taa mu door a wàcc ba ca ëllëg sa la sëriñam génn sëriñ Birahim Jóob ni waaw lii ku doon ku doon sëkk daara ji nii ñu ni ko amat saxiira de mu ñaan ca xaybu booba kenn nekk fa xaar ba ëllëg sa taalibe yépp ñëw jàng si ak aise ndax am nañu fu ñu toog léegi amatul fenn fu ñu nantaana ci daara ji mu bàyyi leen rekk di jàngale ba ëgsi ci sëñ Amat Saxiir war a teg mu mel ni ku xamul woon ku def lii ndax borom xam-xam noonu lay defe mu laajaat waaw ku doon sëkk daara ji ñëpp ni teg sëriñ bi it ni teg sëñ Ahmad Saxiir ni teg mu leen daara ji daf daan taa ku ko sëkk ñu ni ko Ahmad Saxiir la mu ñaan ñaanam nga ko Ahmad Saxiir yaa fonk sa daara ji ba sëkk ko ba mu mel nii mu ni ko waaw ñépp daara jaa ngir déglu mu ni ko ëmm saxiir jazakallahu xayran yal na yàlla fay la yiw mu ni ko ëmm saxiir li toll nit pepp yi nga xam ni ñoom nga sëkke sa daara ji sa daaray bopp yal na ndonga ya tolla noonu ku ne xam na ni Sénégal kenn du xëcc ndongo nan la tollu ak kokki ndax barke ñaanu sëriñam bu ko ko tibbee ci yàlla loolu yàgg loola day continuer ba ñun ñiy njabootu sëriñ Birahim Diop wallaay bu ñu nuy laaj seen liggéey seeni daara kokki ci yi ci jiitu lay bokk dem naa fa ni leen daara ji maa ngi fi dóore ñëw mais dama yëg ni sama daara la ndax dama gëm ni sama ñaanu maam googa ak yéeneem nangu na ci daara ji yal na barkeel mu nekk fa di jàng ba sëriñ Birahim fa feebar mënatu la jàngale dajale leen ñoom ña fa nekkoon ñépp ni leen paree guñu de am na lu des waaye wére dinaa xam naa ni duma ko mën a àggale ndax wére di waaye yéen ku ci bëgg sa njàng àgg te mu mel ni man maa la dooral ba mu jeex ku ko ci bëgg rekk demal Mbuur fekk Alaaji Amadou mu ñëw fa fekk ci sunu baay foofa it mu wone fa kéemaan yooya ak doy lu góor gi Yusufa Fall nee ba mu ñëwee man la fekk di seet sa baay man la fekk ca daara ja ndax dañ ko ni ca zëwya ba fekk Yusufa moo nekk zëwya ba yore daara nee bi mu ñëwee daa nuyoo rekk xool àlluwa yi fekk maa ngi bindal xale yi alquran mu ànd ak man ci bindal xale yi ba mbind ma pare lay door a présenté man yëgal ma ni li ko indi mooy ñëw ngir ndigalu kilifaam gi mu jóge di sëriñam sëriñ Birahim Diop ngir àggale njàng njàngam nee na nekk na ak man ay fan doora a am fu mu dal ci mbuur ne ne ca fan yooyu mu nekk ci doylu gaat dëddu àddina ga mu ni moom mu ngi sol benn mu ngi am benn mbubb kitikaan bu ñuul moom lay sol lim fi nekk yépp mais maa ngi yëg ni teppiku na xottikuwul de dafa teppiku nee na xam naa yàlla ma ko bëgg xamal mooy kan ñu ànd benn bis di dox ba gis pilote wëñ bu ànd ak pusug te bu ñuul la ni mbubbam ne ne mu ni ko waaw ama saxir lii de yàllaa ko indi ginnaaw sa yére bi dafa teppiku wëñ ak pusoo ngi nii dañ ko for nga ñaw ko ci ndekete martabaam la bëggoon a feeñal looloo tax yàlla jaareel fa la loolu mu ni ko yusufa ñun duñu jëfandikoo lu ñu for nga xam martaba bi mu yore fa yàlla yal na yàlla sàmm ko ci njabootam gële moo tax bu daam xewle daam ba mu nekkee ba mu bëggee jàng moom tam jóge kokki yàlla xiir ko mu ñëw sama daara te man Amadou Wade ak Birahima ma jur ma ànd ak moom ca njàng ma di leen xiir ci yor daara looloo tax ma bég ci daara ji naa leen ku ci nara yori ku ci nar jàng ba pare dem di wuuti àddina boo xamee sa diine ba kenn dootula ci nax kay ma ñaanal la nga dem ñibbi wuti sa àddina te xam ni kenn dootula la nax ci diine ku ci bëgg yor daara nag nañu ànd ba nga tollu ci mën a yor daara mu xëy ñëw ni ma man mu allim li ma fas yéene mooy yore daara booba la ma yàlla booleeg moom cofeel gii mu ni ko daam fekk na booba samay doom am na magu daaraam bu ma commencé ñu ngi ci kër gi maa ngi xool kan moo ci yore xale yi mu ni ma man damay yore ji daara ma ni ko alhamdulillahi rabbil alamin ba ma koy ñaanal muy ñëw ma ni ko boo demee daara soxlawul tabax na am mbaar mu yiir xale yi ba naaj du leen jaaxal ma ni ko bu guddee guddi lépp néeg léeg la ma ni ko guddi moom fépp néeg la foo tëdd fanaan fa ba ëllëg yàlla dina la sàmm buñ la wutalee fa ñu la dogal wut fa mbaar waxuma néeg bu la wóoree ni am nga fa mbaar kaay yóbbu sama njaboot def ko fondement ci sa daara ba ma yëgalee ni ñëw na ba ay mbokkam d'accord ci jàppale ko jox ko daara ba wutal ko pakk fekk am na journée bu ndongo yi di daje ca daara ja ma ne ko kon waa waajal boo ñëwee yóbbaale sama njaboot gi sose ko sa daara ba mu ñëwee ani muraad waaw kay ca portele bële ca daara ju jëkk ja mu nga ca asan ñang sama jarbaat mu nga ca ñoom ñaar ñooña ñëpp sët lañu ci sëriñ Birahim Diop sët lañu ci Alaaji Amadou Wade ñi nga xam ni ñooy sëriñi waa kokki ñoom la fondement wee daaram ji ba ñooña pare ma jël seeni rakkit indiwaat ñu nekk fekk moom ma dem ba waa mbuur yépp waa mbuur yépp ku fa bëgg sa doom jàng alquran fii nga koy indi ña mu nekk ca daara jaag ña ca nekkul woon sax tey ay imam ca mbuur imaam mbuur ya yépp laa wax ku ci bëgg sa doom jàng alquran daam wan na lu ñu ko wóoloo ba fii lañ koy indi ñu jàng ci alquran mbokkoo gënu la loolu bis bi maag moom ñoo ko bokk bis bu ko jàppee dañ ciy diisoo ndax di ñaan ma am ci jot ñëw fekke ko ndax sama bisu daara la yal na yàlla saxal daara ji mu yàgg lool waaw këñ Ibrahima loo ñëw na yal na yàlla barkeel waa Koki toujours fii lay dajeek ñoom ñu yëg ni ñoo bokk daara ji yal na yàlla barkeel daara yépp bu ko defee sëriñ mu sëriñ bu ndaame bu dëgër bi sëriñ xaali jazakallahu xayran ayyadakallahu daa am lu mu santaane muy ittixaazul quraanil karimi xalilan yàlla moom ibrahima la defoon xalil mu ni ñun nañu def alquran xalil mii nan teg moom def ko muy sunu intime waxuma boo ko defee muy sa intime la ca gën a neex mooy mu wax la biiram un intime moom day won xalilam biiram alxillu kalmaa i di lii damairahu ma assafa i sellalal intimité gi nga am ak alquran moom ci boppam mu révélé la ci biiram loo xam ne li keneen xamu ko ndax alqillu kalma i yubdi lii dama irahu ma assafa i wa yuxfiha ma alkadari na sell rekk lu nekk ci biiram nga xam ko mu won la ko te nag gis nga yàlla alquran la def muy yonent bi fi continuer nekk fekk ñun ginnaaw bu yonent bi demee fattaqullaha ya ulil albaabi alladina amanu qad anzala allahu ilaykum zikran rasulan kon du yonent bi rekk moo doon yonent li mu indaale di azzikri yit ndekete yonent la yatlu alaykumu ayatillahi mubayyinatin li yuxrijakum min azulumati ila nuur alquran mooy yonent bi fi des di jàng aaya yàlla yi ngir génne ñu min azulumati ila nuur te nag xam ko boo demul daara doo ci bokk ci ñi ko xam te afa man yaalamu annama unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa ama alquran la ña ko xam ñooy ñi nga xam ni ñooy ulul albab te innama yatazakkaru ulul albab ndax jikko yamu lay yégal mooy allazina yuufuuna bi ahdillahi wala yanquduuna al misaaxa te ëhdullahi benn gënu ci dëgër bi sunuy maam ak sunuy baay amoon ak alquran ak ñi ñu ko séqaloon ba daara yi sosu ci nga xam ni daara joo ca dem yëg ni sa daara la man bu ma ñëwee kokki damay fier yëg ni sama daara la bu ma demee Bouchra damay fier yëg ni sama daara la bu ma ñëwee Kër Mbaarik damay fier yëg ni sama daara la ndax nag mii sax ba ma séqan ba samay maam ak samay baay séqoon nag ña ko sosoon lay fexe wafaaku bihi fu ma toll ak alladina yasiluuna ma amara allahu bihi an yusala te mbokkoo la yàlla ni nañ ko jox te mbokkoo gi ci gën a dëgër mooy ki nga bokkal ci diineeg alquran wa yaxshawna rabbahum wa yaxaafuuna suu alxisaab daara dafa miti waaye alladina sabaru miti ci daara ya ca ba muy door dong lay doon kat ibtigaa wajhi rabbihim muy miti nga muñ ko ngir li nga ci am ci sa jëmmu borom kese wutuloo ci dërëm wutuloo ci ngërëm wa aqaamu salaata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan gis nga bala ñoo woo keneen ni ko kay jàpp ci li ñu am daa jeex li ñu jëkk li ñu am moom ñoo daara jee ko bokk bu jeexee nag ku ñu yërëm indi la nga indi ñu dugal ko ci daara wa yadra'uuna bilxasanati sayyi'a lu ñu yëg ni nar naa ñaaw ñu jël lu rafet dàqe ko ko ulaika lahum uqba daari yal nañ ci yàlla boole alquran nag ba léegi li mu am ci ay xawaamit kenn génneegu ko bis bu jot rek yàlla won ci nit lenn ni ko xoolal lii day xëy rek jëlub jaamam ni ko xoolal lii mu xool ko ni ndekete alquran nit mënu ko woona wax yàlla dong moo ko mën indi dama ci gis benn ci tubaab sax ka ko génne ab tubaab la tubaab boo xam ni traduction alquran la xool ba génne ci ci ayatul kursi lu ma ni waaw xoolal lii rekk mu ne ayatul kursi juróom-ñeenti aaya la juróom-ñeenti aaya yi ñeent jiitu mu am aaya bu ñëw nekk ci digg bi ñeent topp ci te aaya ba ca digg bi mooy ya'lamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum kon aaya ba day yëgle ni ñeenti yi jiitoog ñeenti yi ci ginnaaw ndekete dañoo am relation allahu la ilaha illa huwa alxayu alqayumu la commencé wa huwa alaliyu alazimu la tëje bu la neexee ne allahu la ilaha illa huwa alxayu alqayum wa huwa alaliyu alazim ma bayna aydihim ji ñaari turu yàlla ci nekk alxayul qayyum wa maa qul fahum ji ñaari turi yàllaa ci nekk wa huwa al aliyul azim laa taaxuduhu sinnatun wala nawmun la ca teg mu ni yàlla du gëmmentu du dajjant du nelaw looloo tax laa yauduhu xifduhuma gis nga kuy dajjante ka nelaw doo garde dara vigile bu dul gëmmentu du nelaw moo man laa yauduhu xifduhuma laa taaxuzuhu sinnatun wala naw moo tax laa yauduhu xifduhuma lahu ma fi samawaati wa ma fi l arde ci tegu lu tax mu ni ndax kursi yu ba mu nekk moo ëpp asamawaati wal ard wasia kursiyuhu samawaati wal ard looloo tax lahu ma fi samawaati wa ma fi l ard man za alladi yashfau indahu illa bi iznihi du kenn ndax mooy ki nga xam ne laa yuxiituuna bi shay'in min ilmihi illa bi ma shaa ca digg ba nag mu teg fa ya'lamu ma bayna aydihim mu dellu ci ñeenti yi jiitu wa ma xalfahum mu dellu ci ñeenti yi nga xam ne ñoo tegu ci boobu teg li ab tubaab laa la ko wax de moo ko génne mu ni lii ku ko xool xalaat yi xam ne alquran du waxu nit yàlla subhanahu wa rek moo ko mënoon wàcce te kat du jeex yu mel nii ci alquran mooy baasu xam-xam gis nga kuy wut xam-xam bu jëm ci àddina ak alaaxira te jàngaloo alquran def ko muy sa xaliil ni ki ko xaalit waxe ba nga xam ni dalay feeñalal ay mbóoti boppam wallaay ndeketee xamaguloo sax li la yàlla indil muy alquran kon ñi koy jàng alhamdulilahi du njàmbaar xamoo ni jàngale alquran du njàmbaar tànneefu yàlla la na mu tànne yonent bi wàññe ko wàcce ko ci moom lay tànne ñu koy jàngale mu xam loo leen ko summa awrasna alkitaba allazi nastafayna min ibadina la yàlla wax maa ko donnuloo ñi ma tànnal samay bopp ci jaam yi ñu ni fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muxtasidun wa minhum sabiqun bil xayraati lu ci mën a nekk ña ko nekk ñu ngi ko nekke bi iznillahi te zalim li nafsihi jamono ko ko teg ndax daa ñëw fekk la yonent ni woon sa yaudu gariban kama bada fa tuuba lil guraba jamono jooju la tollool moo tax mu nekk zalim li nafsihi yàlla leeral lan mooy zalim li nafsihi ni kuutaay la ñuy fa xalafa min baadihim xalfun warisul kitaaba waaye yaaxuzuuna arada hada al adna wa yaquluuna sa yuxfaru lana wa in yatihim aradun misluhu yaaxuzuuh mu ni jamono ja ñuy tollool la jamono joo xam ne ji ku amul addina ak alali addina duñ la considéré ba ñoom ña doonnu téere ba yaaxuzuuna arada hada al adna wa yaquluuna sa yuxfaru lana loolu lépp zalikal fadlu minallahi ngëneeli yàlla la te yàlla nee na ñaca toll buñ leen ne fuñ ko jëlee nañuy yëg ni du seen njàmbaar xul bi fadlillahi wa bi rahmatihi gis nga ku yàlla xiir ci alquran rek dalaa ngëneelam la la ci xiireeg yërmandeem yàlla laa yuhibbul farihin lu dul waa daara ji waa daara ji rek la ni wa bi zalika fal yafrahu bu ngeen ko amee nag yàlla xiir seeni moroom ñeneen ci leneen yéen mu xiir leen ci daara ji rek fal tafrahu am leen ci fierté ndax gaa yi dañuy dajale te huwa xayrun mimma yajmaun yàlla ñu yàlla boole ci ñi nga xam ni nag da leen di gërëm ci li nga xam ne lii moom lañu ñu jotalal yonent bi fayel ñu mag ñi nga xam ne ñoo ko yoroon ba jox ñu ko yal nañ leen yàlla fayal yiw te waajalal ñu ci njaboot gi ñoo xam ne bala ñoo dem dinañ leen ko jox ñu continuer ko incha allah gis nga bada addiinu gariban wa sa yaudu kama bada fa tuuba lil guraba fa la mag ñi xaar ca fa tuuba lil ja lañu mag ñi xaar séddooñu ba mënuñu cee mucc sëñ tuuba ni waa këram ñooy nekk alxuraba moo tax mu tudde dëkkam tuuba ndax yàlla yonent bi def ni fa tuuba lil xuraba mu ni kon de xuraba yi sama njaboot ay doon tudde dëkkam tuuba alaaji malik ni yàlla sama njaboot ilaahiya faj al ahlana ahla xurbatin ñoom ñaar ñoo bokk objectif seen objectif mooy njaboot gi diiney tumuranke ci ñoom ci mujjuk xeetu yonent bi di seen njaboot te yàlla nangu na ko yàlla nañ ci yàlla boole ku ne fan cay naan nag nga naan fa xat alimat kullu unaasin mashrabahum li tax may bég ci njàngaleenu sëriñ Birahim ak alaaji Amadou ak sama bos mooy ñun yonent bi la ñuy liggéeyal njabootu yonent bi ku nekk ñu man tiitaroo ëllëg sa njabootit kat ñoo leen jàngaloon masula la ñoo am teqale diggante turux yi amul xam nañ ñi nag xad alima kullu unaasin mashrabahu ku ci nekk fa ngay naane yaa ngi fay naan ba mandi li lay yëgal ni naan waajaa ngay naan ca mashrabam mooy doo ko gis mukk mu ñëw di la xat-xat di la xatal sa mashra ndax xam na ni li mu fi ñëwee di la xatal naan na ba màndi xad alima kullu unaasin mashrabahum te mag ñi masuñu ñaan ñu naane leen ci benn naan mashaariba ahlil hadratayni li tasqina la ñuy wax yal nañ ci yàlla nandal ñun ñëpp dafa fekk ni tarbiya nag boo koy def dañu la ni bala ngaa jël benn tariqa na nga gëm ni fii mooy sa naanuwaay amoo feneen fu dul naane fu dul fii kii moo la ci mën a nandal keneen du la ci nandal waaye boo ko jàppee ba pare wala taataqid fadlan alal xayri xamal ni day sa naanuwaay mais bul jàppe mukk ni am na ngëneel bu mu am ci keneen ki tax tarit bu ko defee rek waru loolu lañ ñu yare ba moo tax ñun xadaraat yi nekk ci senegal yépp tey jàngale diine ala tariqi tasawufi waaye ñun ca tariqa yoobu la ñu bokk tariqa bu mag ba ñu bokk ak tariqa yëpp mooy tasawuf mu tasawif woon la ci biir mu tasawif yi na nag ku nekk danga ngaa am foo bokk foo xam ni wutuloo ko sax danga fekk kóllëre diggante say wéy jur yeew la fa nga sàmm kóllëre googu nekk fa yal nañu yàlla sàmmal kilifa yi tariqa yi nekk senegal yépp sàmm taalibe yi nga xam ni ci biir lañu bokk sàmm daara ji ba alquran feek mu fii nekk réer du am yonent ko wax taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abadan yonent daf ni li leen bàyyil bu ngeen ko ngayee du ngeen réer mukk ñu ni ko lan mu ni kitaabullahi wa sunnati te loolu tariqa yépp ci lañu ngoy yal yàlla fay ñi leen ñi ñu ko indil yar ñu ci ba xamuñu lu dul loolu daam nag di ko ñaanal yàlla di ko jaajëfal te bu ma ko ñaanalee yàlla jaajëfal ko sama bopp laa ñaanal daam moom sama bopp lay ñaanal wóor na ma lu mu am ci yow yiw ëllëg maag moom dinañ ko bokk insha allahu ndax xam naa ni yéene na ko te ma nit toujours maa ngi ciy jëf ngir loolu réussir bu ëllëgee bu yàlla ne ñi yoroon alquran ca jamono yi mujjug jamono nag ñun fi ñu ko yore moo gën a jafe waaye ña ko yoroon ca mujjug jamono ba ñëpp ne daara du dara ñoom ñu ni dara du dara lu dul daara yal nañ ci yàlla boole daam ayadaka allahu wa nasarak ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu ñu jóge kokki di leen ziyaara di nuyu waa ndaam yëpp sama waa looyeen yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq ak taysir وفقنا الله وإياكم جميعا على طاعته برداه ويسرنا لليسرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لقد كان لكم Is what